طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk جروب القرآن السنة ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte lool ci indeman bi nga xam ne euh, defal nañ ñu ko dugal ñu ci groupe bu barkel bi nga xam ne daanaka bu ñu xoolee membre yi nekk ci groupe bi da ngay gis ne am na yeneeni groupe yoo bokk ñoom kon li lay wan rek mooy euh, montur yu baax yëpp bokk heure foo dem rek da leen di fekk ñuy bokk heure te itam alxuraan ak sunna rek moom moo leen ñor kon ñi ngi sant borom boobu nga xam ne moo ñu defal euh, xéewalu wan ñu lan mooy dëgg ñu cay jéem a topp waaye ñu wan mu wan ak neen ñu cay ñu koy jéem a sori di julli nag di sëlmal ci yonentam bu tedd boobu muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal soxna Zuma Fall mi nga xam ne moom moo ñu dalal ci groupe bi euh, te di ko ñaanal tawfiq di ko ñaanal tamit waa group bi yépp Euh, li nga xam ne nag xëy na moo waral ñu dugg ci groupe bi mu nekk ab waxtaan woo xam ne dañ ko fas yéene amal ak suñu ay mbokk jullit waaye rawatina suñu ay mbokk jigéen ndax mbir mi nekk na mbir moo xam ne bu yitteel jigéen la lool lool alhamdulillah li nga xamante ne nag moom moo ñu dajale tey ci boole ñu ci jotaay bi mu nekk ab fàttali boo xam ne dina jëriñ ñi nga xam ne dañoo xamoon ba pare waaye itam dina jëriñ ñi nga xam ne dañoo xamoon ba pare fàtte waaye dina jëriñ ñi nga xam ne xëy na mosuñu ko woon a xam ndax ay atte la yoo xam ne képp kuy jigéen rek war nga cee am benn xam-xam boo xam ne dana la dimbale ci sa àdduna dana la dimbale ci sa àllaaxira ndax say jaamu yàlla dafa dépendre ci atte yi nga xam ne moom la ñuy andi nii ñu jëloon ab mawduu boo xamante ne mooy thème boo xam ne moom lañ war a waxtaanee ñu sàkk woon ci ñun ñu wax ci loolu muy ak altabiiya lin nisa wala ñu ne ahkaam addima altabiiya li nisa euh, deret yi nga xam ne yu naturel la di génn ci jigéen wala attey deret yi nga xam ne yu naturel la yoo xam ne day génn ci jigéen wa yuqsadu bihi addima attaali bu ñu waxee nag deret yi nga xam ne ay deret yu tabi'i yi la maanaam deret yu euh, yu naturel yuy génn ci jigéen ñu ngi ci jublu ñetti façon deret yi bi ci njëkk moom mooy alxayd ñu gën ko xam ci mbërët wala règle wa an nifaas ak li nga xam ne mooy nifaas ñu gën ko xam ci deretu gësin ak li nga xam ne mooy istixaaba ñu di ko wax deretu jorngel mu nekk ñetti deret yoo xam ne jigéen ji euh, da koy gis bu mujj bi sax yenn saa yi ab anormal yi moo koy waral waaye ci deret yi naturel yi la bokk waaye jigéen dina ko gis itam kon ñetti façon yi deret yooyu yëpp incha allah ñu bëggoon na ñëw ngir daal di ci andi yenn jàngat yoo xam ne boroom xam-xam yi def nañ ko ci leeral ko ci ba jigéen ñi mëna am fu ñu teg seen tànk fu leer ci lu jëm ci seen wàllu jaamu yàlla fa inna ahkam alxayd والنفاس والاستحاضة من الأمور التي يجب على المرأة المسلمة معرفتها حتى تصح عبادتها الدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة من المرأة ثلاث أنواع وهي الحيض والنفاس والاستحاضة وسوف نتحدث عنها ليغا خامتاني موي فاصوني ديرت يوي دي ген سي جيجن نك سي وير بو نيك ا بيسي جيتو موم موي ليغا خامني موم موي الحيض غا خامني موم موي جيتو موم موي نيك ndax jigen dina ko gis te fekk nekkul ko am borom kër jigen dina ko gis fekk nekkul ko am doom kon deretu hayb nga xamantene mom lañuy wax règle kon jigéen ñi niñ ko euh, euh, xamee ñun ñëpp deret la boo xam ne dafay génn ci li nga xamante ne mooy jigéen weer wu nekk bu fekkente ne feebarut amul dara dara loo xam ne téye na ko ba tax loolu du génn bu ñu waxee nag alxaydu luxatan ci wàllu làkk arab dañuy wax moom mooy assayalaan moom mooy loo xam ne day wal moo xam ne loo xam ne dafay wal moo tax dañuy wax yuqaalu xaada assayl wa faada ida saala xaadat almaratu damuha kon li nga xam ne moom mooy deretu li nga xamante ne mooy mërët dañ koy wax deretu xayd muy règle dafa nekk loo xam ne ci wàllu luga suñ waxee xayd rek mooy lan ci luga mooy assayalaan mooy loo xam ne day rogalaat di wàcc moom looy loolu lay firi ci wàllu làkk arab ci li nga xam ne mooy lisaanul arab waaye bu fekkee dañoo wax alxayd fi l fi fi fi l isti bu ñu waxee xayd fi l nag mooy lan mu ne damun yuxraju mooy dem deret joo xam ne day génn fi raximil mara ci li nga xam ne moom mooy Euh, li nga xam ne mooy raxim dañ koy wax ànd jigéen mooy li nga xam ne mooy bu wannoon lor fa doom jëda tëdd foofu la ñu tuddee raxim foofu noonu foofu la deret bii di xayd di bàyyeekoo ida balagatil mara bu fekkente ne jigéen ja dem na ba nekk koo xam ne ku majeur la kon deretu xaydi mi ngi génn ci jigéen bu fekkente ne jigéen bu majeur la fan lay génne ma ngay génne ca fa nga xam ne moom mooy ca ànd ba mooy fi nga xam ne mooy arrahim foofu la deretu xayd di génne ki nga xamante ne mooy ibnu qudama bi muy xamale li nga xam ne mooy deretu xayd dafa ne huwa damul damul xayd damun tabici laysa lahu min maradin aw suquuti janinin aw wilaadatin mooy mu ne amrun katabahu llahu ala annisa mu ne li nga xam ne moom mooy xayd de ci jigéen deret la joo xam ne ju naturel la di génn ci jigéen feebar du ko waral euh, li nga xam ne mooy avortement du ko waral wala am doom du ko waral li koy waral rek mooy naturel la loo xam ne yàlla moo ko bindee euh, banaati aadama mooy jigéen ñi ñi nga xam ne Euh, jigéen yi nga xam ne maanaam majeur na yàlla moo leen bindee deret jooju di génn ci ñoom ci weer bu jot kama qaala sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon Aïcha daan ne ko maalaki anafisti daal di gis Aïcha kanam gi xaw a changé mu xaw a mel ne ku triste yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy laaj ne ko maalaki lan moo la dal ndax yonent bi saa sallam dafa nekkoon koo xam ne da daan yittewoo ay mbiru soxnaam kub ci gis sa kanam xaw a ñëkk wala mu gis la nga xaw a changé wala nga xaw a sonn daf lay nemmee ko pour laaj la lan moo la dal te loolu mu war a nekk jikko boo xam ne suñu mbokk góor yi war nañ ko cee roy bu baax a baax a baax ba mën di nemmeeku soxna yi di xam seeni coono di xam li nga xam ne mooy seeni bëgg-bëgg ak li nga xam ne moo leen di gaar yonent bi saa daa tay amna tey lu xew mu daal di koy laaj ni ko malaki ana fis ci lan la xanaa nga gis li nga xam ne mooy mbaax qultu naam aisha nee na ma ne ko waaw waaw waaw damaa gis li nga xam ne mooy xeet yonent bi saa sallam mu ne ko inna haada amrun katabahu llahu ala banaati aadama faqdi ma yaqdi alxaaj gayra an la tatuufi bilbeyt Aïcha yonent bi sala sallam ne ko loolu de luy génn la ci jigéen loo xam ne yàlla moo ko bindee jigéen ñi muy génn ci ñoom muy doomu aadama yu jigéen yi mu ne ko waaye defal lépp lu ajkat di def ba mu des nga xam ne mooy wër kaaba gi kon foofu noonu yonent bi sallallahu sallam leeralal nañu jigéen ji nga xam ne dafa dem ba Màkka li nga xam ne mooy xaydu daal di ko fay dab mu gis règle yonent sa sallam nee na def lépp lu ajkat di def ba mu des wër kaaba gi kon mën na dem safa ak marwa mën na def uh, yeneen jaamu yàlla yépp ba mu des di nga xam ne moom mooy wër kaaba gi xëy na bu boobaa ak julli kon nga gis ne fii nii uh, li muy firndeel rek mooy wax bële ibnu Qudaama waxoon ci kaw ci ne xay xaydukat mbir la boo xam ne yàlla moo ko bindee jigéen ñi doomu aadama yi jigéen yi kon euh, ci li ñu weesu xamle nañ lan mooy alxayd ci wàllu li nga xam ne mooy làkk arab xamle ko tamit ci li nga xam ne moom mooy al ci istilaax waaye andi itam waxu borom xam-xam boobu ci xamle bi mu xamle lan mooy xayd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko Aïcha gisee lan la ko wax kon ñuy topp ñuy euh, toftalu rek ca tomb bi nga xam ne moo ci topp mooy euh, lawnuha lan mooy law lawnul xayd li nga xam ne moom mooy xayd ban couleur la am ban couleur la am ba tax beneen deret bu génnee ci jigéen ji bokkut ak couleur bi mu xam ne ah lii de nekkul xayd awalan lawnuhu li ci njëkk mooy aswadun du raihatun kariha wa ghalid ngeen baal na yéen sama mbokk jigéen yi ndax jàngalekat moo mel noonu te itam yàlla moom rusul dëgg te yonent bi sallallahu alayhi tamit ñim ko jàngalee rek noonu lañ koy mën a jàngalee mu ne eh, damul xaydu dafa nekk deret joo xam ne aswadun dafa ñuul zu xatin am lu nekk loo xam dafa ànd ak xet boo xam ne xet gu gu naqari la waaye xet gu diis la xet gu sëcc comme ni ngay déggee yenn saa nit ñi di ko wax ba tax na jigéen ji su tollee fii dafa war a nekk ku farlu lool ci boppam yokku ak cetam ba nga xam ne du loru ca xet ga waaye du ca lor keneen ku dul moom rawatina borom këram mi nga xam ne mooy nit ki ko gën a jege kooku war na góor góorlu bu baax a baax farlu ci boppam ba nga xam ne xet gi kat dina ci mën a dimbale boppam dimbale ci ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko uh, wër kon melokaanam mooy dafa uh, dafa ñuul deret ji dafa xaw a diis waaye dafa am li nga xam ne moom mooy xet goo xam ne xet gu naqari la bokk na ci ay turam asmaul xayid bokk na ci ay turam moom moom xayid ndax dafa am ay tur yu bëree bëree bëri waaye bi ci gën a siiw moom mooy xayid mooy baat bi ñu jëfandikoo waaye amaat na beneen tur bu ñuy wax ak tomas ak tomas tur la ci turu xayid ak yeneeni tur yoo xam ne amoon am na ko an nafs an nafas tamit dañ koy wax xayid ndax yéen si sal ba muy wax Aïcha dane ko maaleki an nafas an nafas an nafas ti ngeen ñu ci kàddu kon nga gis ne euh, xayd tamit lu am ay tur yu bëree bëree bëri la waaye andi nañ ci ñaari tur yooyu noonu ñetti tur yooyu kon euh, li nga xamante ne mooy xaydu kon ñu xam ne nekk na mbir boo xamante ne kon lu lu lu am ay tur yu bëri la ما علامته آه، من هو من علامة البلوغ ليه هم نموي حيد دفا بوكوشي من دار جاي وانيني ندو سيكات نك نكو هم نكو مجير الحيض من علامات البلوغ دفا نك تي دفا نك لو هم ندي وانيني ندو سيكات مرنا اب جانق ليجي ولا بوك بنو سيكات مجيرنا سو دفا بكار يالو دفا كوفاي جابي bu defee tuyaaba itam dañ ko koy bindal kon xaydu dafa nekk mbir moo xam ne dafay wane li nga xam ne mooy bala euh, buluux bi nga xam ne jigéen mat na ko ci li nga xam ne mooy ay atam ba nga xam ne bu gisoon borom kër ku ko ci maye it sëy ba dafay dagan moo tax euh, yonent bi sa sallam waxoon ne laa yaqbalu llahu salaata xaidin illa bi ximaar yéen si sa salaam mu ne yàlla du nangu jullit koo xam ne day gis mbërëb lu dul ne dafa muuru maanaam kon jigéen ji su demee ba commencé gis xayd suy julli am lenn lu feeñ ci awraam rek julli ba dootul wer bidaayatu waxtul xayd wa nihaayatu xayd itam dafa am waxtu boo xam ne ci lay tàmbale am waxtu woo xam ne itam ci lay jeex mu ne aqallu sin taxidu lahul mara tisa sinin at yi gën ndaw ci li jigéen di euh, gis li nga xam ne mooy xayd moom mooy bu amee juróom-ñeenti at bu amee juróom-ñeenti at at yi nga xam ne moo gën a bëri ci li nga xam ne fa la xayd di yem mooy bu jigéen ji demee ba am xam si na sana mu am juróom fukki at kon bu amee juróom juróom-ñeenti at mun na ko commencé gis bu demee ba am juróom fukki at mu daal di arrêté kon euh, xayd nekk na mbir boo xamante ne day wane ne soxna si kat majeur na léegi mot na moo tax ki nga xamante ne moom mooy tirmisi rahimahullah ak ki nga xam ne mooy ahmad bin hanbal ak ishaq bin rahwe ñoom dañoo wax ne bu fekkente ne ndaw si moom am na li nga xamante ne moom mooy juróom-ñeenti at fa zuwijat fa radiyat bi nikaaxu jaiz ñu may ko borom kër mu ànd ca maye ga mu ne foofu sëy ba day daal di dagan kon xale bi bu amee juróom-ñeenti at ñu maye ko sëy ba dafay daal di dagan lan moo tax mu ne ndax nit ki bu amee juróom at mën na cee gis règle te bu gisee nekk na ku majeur kon bu fa bu boobaa eh, sëy boobu dafay dagan ndax maye nañ ko fekk nekk na ku majeur kon nga gis ne islam fii daf fi wutee ak ñi nga xam ne mooy nasaraan yi ndax ñoom dañuy wax ne jigéen bu amee 18 ans lay majeur islam ne déedéet bu amee juróom-ñeenti at mën na majeur parce que bu amee juróom-ñeenti at itam mën na cee gis règle nee na nag ñu ñu daal di tegtaloo ci xadis Aïcha bi nga xam ne ah, maanaam waxoon na ne yonent bi sallallahu alayhi bi mu koy takk mi ngi amoon juróom-ñeenti ñeenti at kon nga gis ne différence bu rëy bi nga xam ne am na ci diggante islam ak ñi nga xamante ne ñoom dañuy bàyyi jigéen ba mu am fukki at ak juróom-ñett nga xam ne daanaka ci diggante boobu yëpp mën na fi gis règle waaye duñ ko jàppeeku ku dañuy jàpp ne xale la su ko defee muy sol lu jotut wala muy def ay bàkkaar waaye dañuy jàpp ne ah moom kat majeur agut moom majeur agut bañ dem ba sax léegi boo ci mayee xale bu jigéen lu jiitu âge boobu da gis ne mën nga ci am ay problème mu nekk nag ay njuumte yoo xam ne islaam moom giseewul noonu moom li mu gis mooy saa yu jigéen ja gisee règle rek bu boobaa nekk na ko majeur la war ña majeur war na ko day am bàkkaar bu defee bàkkaar day am tuyaaba euh, su defee tuyaaba waaye suñ gisee ku ko bëgg it buñ ko ko mayee sëy boobu dafay nekk sëy boo xam ne sëy bu wér la lii di xayd dafa am li nga xam ne moom la ñu wax muddatul xayd maanaam dafa am li nga xam ne mooy waxtu boo xam ne moom la xayd di am waaye kenn mënta natt xayd ci waxtu wu gën néew waaye mën nañ koo natt ca la nga xam ne moo gën a bëri ndax li nga xamante ne moom mooy euh, xayd dafa nekk mbir moo xamante ne euh, euh, mbir la boo xam ne mutlaqan dafa nekk lu lu ubbeeku amul loo xam ne dañ ko cay tënk ne ah nangami fan yi la war a am wala nangami fan yee ca la war a yem waaye mbir la boo xam dafa ubbeeku di changer ci diggante jigéen ñi kii da am gis ko nangami fan kii am gis ko mi fan moo tax nekkul loo xam ne dañuy mën a tënk ne ah xaydkat ñetti fan la wala ñeenti fan wala juróomi fan waaye am na ñoo xam ne seen bés ñetti fan la ñii ñeenti fan ñii juróomi fan ñii fan am na ñoo xam ne seen bés sax day ëpp loolu yenn saa yi waaye li ci gën a wér daal mooy ne amul waxtu amul fan yoo xam ne dañuy mën a tënk ne ah fan yi fa la ko islaam yemale ndax islaam dafa def li nga xam ne mooy xayd mu nekk mbir moo xam ne mutlaqan dañ koo boyal jigéen ju nekk ak na ko yàlla bindee ak fan yi nga xam ne moom la koy gis waaye moom xayit dafa am ay màndarga yuy wane ne kat jeex na bu fekkente ne dikkal na jigéen ji am na ay màndarga yuy wane ne ah xayit bi de jeex na bokk na ci alaama yooyu noonu mooy alaama yoo xam ne jigéen ji war na koo xam bu baax a baax bu demee ba toll foofu kat su gisee lii mu xam ne jeex na waaye yenn saa yi nga gis jigéen joo xam ne xayd bi dafay jeex ci moom muy tendeefal di taxaw di di ànd ak bi di dem tayal loolu ci julli yi bañ a sangu bañ a julli na xam ne bu boobaa bàkkaar yi mi ngi daanu ci kawam ndax set ga euh, tàbbi na euh, xayd ba arrêté na màndarga yi ñuy bëgg a wax génn na ci moom kon bu boobaa bu fekkente ne taxaw na bañ a julli bu boobaa daf ciy am bàkkaar bi ci njëkk ban la awalan mooy nuzulu euh, qasatul bayda wa huwa maun abyadun yaxruju min laximil mara bi ci njëkk mooy li ñuy wax xasatul baa mooy ab euh, genre perte blanche boo xam ne day génn ci jigéen ji di jóge ca li nga xam ne mooy ànd ba di génn ci raxim bi di génn euh, mu ne loolu bu fekkee jigéen ji gis na ko gannaaw ba xayda ba arrêté na xam ne loolu wane day wane ne a ah, deret ji jeex na saaniyen bi ci topp mooy aljufuuf mooy mu dem ba xam ne pëyam wow na dara génnatu ci bu boobaa loolu day wane ne ah lii de moom ah dara nekkatu ci mën na sax utiliser li nga xam ne mooy coton parce que am na coton yu xaw a mel ne mm, baaraam ngeen baal ma ci wax ji xaw a mel ne comme craie ni muy tollu coton yooyu bu ko amee mën na ko dugal ci kanamam euh, rocciwaat ko xool bu xoolee gis ne taxul dara dina xam ne euh, xayd bi jeex na taalisan ñetteel bi mooy as sufrawal wal kudra ak sufra wal kudra tamit ñoom ñaar huma ñoom ñaar maa la ndox la boo xam ne dafay génn ci kanamu jigéen ki nekk ndox boo xam ne dafa xaw a foncé tuuti xaw a mel ne ndox mu xaw a tilim wala mu mel ne lu xaw a jege vert bu ñor ndox moomu tamit saa yu génnee ci li nga xam ne mooy jigéen ji daa war a xam ne xayda bi kat jeex na bu boobaa li ci war moom muy sangu daal di commencé li nga xam ne moom mooy ay jaamu yàlla waaye sufra ak kudra bu fekkee dafa génn ci jamono xayd bi dañ koy jàppee xayd waaye bu fekkee dafa génn ca jamono ja nga xam ne xayd bi jeex na bu boobaa kenn du ko jàppee dara ci qawlu ummu atiya mu ne kunna la nauddu al al kudratu wa mu ne ba gannaaw ba ñu setee daaw jàppee sufra ak dara maanaam daaw ko jàppee sobe kon ñett yooyu noonu su fekkente ne jigéen ji gis na ko ci biir xayd bi day xam ne set na bi ci njëkk moom mooy génn xosfatul bayda bi ak li nga xam ne mooy aljufuuf ak li nga xam ne mooy al sufra wal kudura ñett yooyu saa yi demee ba gis ko day xam ne moom kat set na léegi ñu ñëw ci li nga xam ne mooy almaratul xaamil jigéen ji nga xam ne dafa nekk dafa tollu diggante ndax moom dina gis xaydu tey bu fekkonte ne dama jàkkaarloo woon ak yéen dama leen di laaj question boobu ne leen ndax jigéen ju ëmb dana gis règle waaye foofu tontu bi mooy dahaba jumhurul fuqaha ila anna almaratu alxaamil la taxiid galiban ñoom nee li ëpp ci mbir yi mooy ne jigéen ju tollu diggante du gis li nga xamante ne moom mooy euh, xayb Euh, tomb bi ci topp mooy li nga xam ne mooy setal bi nga jigéen ji war a setal yéreem bu fekkente ne euh, taq na ci lenn ci deretu xayd setal gi mu ko war a setal pour mën cee jaamu boroomam subhaanahu wa taala ndax bu ñu fàtte ne ñun suñu jamono la yére bëri nii mais jamonoy saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ak euh, ñoom nekkuñu woon ñu bari woon ay yére am na ci soxna soo xam ne dafa mës a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy laaj ne ko man de benn yére laa am te moom laay gisee xaydu su fekkente ne taq na ci naka laay def yonent bi saw sallam daal di koy ne bu boobaa danga ciy def ndox daal di koy fete ba mu dañ même bu fekkee danga cee def ndox fete ko mu dañ euh, deret ja dañ mu daal di des li nga xam ne mooy lu xaw a mel ne lu marqué di wane ne fii la deret ji taqoon waaye deret nekkatu fa du tee booba yére ba set na mën nañ cee julli beneen bi ci topp mooy àtte li nga xamante ne moom mooy euh, euh, xayd mooy bu fekkente ne nit ki dafa gis xayd fekk dafa yoroon janaaba masalan nit ki ànd ak euh, borom këram ci guddi gi mu xëy war a julli fajar daal di gis ne moom de xayd bi dikkal na ko ñu ne lan mooy àtteem bu boobaa ndax dafay sangu soog a gis xaydam déedéet bu boobaa du sangu waaye day bàyyi ba haytu ba jeex mu soga sangu li nga xamne moy moy janaba manam mu soga sangu sangu bi nga xamne ci lay sété ci walu bi benen bi ci topat mom moy talaqu at talaq asna al hayd aw nifas moy jigen ji dem ba tollu ci jigenté gis règle wala mu gis deretu jarngel nga ma dereetu euh, nifas moy dereetu afwan ndax koku fase ko dana dagan ñu ne déedéet yaxrumu ala zawj an yutalliqa zawjatahu wa hiya xaaidun aw nifaas bu fekkente ne ah, borom kër gi dafa bëgg a fase soxnaam fekk soxna sa ma nga gis règle wala soxna sa ma nga yor deretu gësin bu booba fase ba du tàbbi fase ba du du wër fase boobu dañ koy wax fase boo xam ne fase bidaa la nekkul fase bu tegu ci sharia ndax borom subhaanahu wa taala dafa wax ci quraanul karim ba audu billahi min alsheytaani rajim mu ne ya yaa ayuha nnabiyu ida tallaqtum nnisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa axsul idda wattaqu llaha rabbakum mu ne su ngeen di eh, wàcc wala su ngeen di fase jigéen ñi na ngeen leen fase ci la nga xam ne mooy seeni idda waaye ni ngeen jàpp li nga xam ne mooy idda ba kon boo koy fase itam danga koy fase ci jamono joo xam ne set na bu ko defee mu daa di xam nekk fase boo xam ne fase bu sharia di nangu la waaye jamono ja mu gisee mbërët wala jamono ja mu nekkee di gis deretu gësin jamono jooju kenn du ci fase jigéen soo ko ci fase dafay nekk fase boo xam ne fase bidaa la kenn du ko nangu kon euh, ci yooyu ñu andi mooy atte yi nga xam ne dafa aju ci li nga xam ne mooy di jëm ci wàllu xayb ndax mbir la boo xamante ne wax dëgg yàlla atte yi xaw na cee bari lool jigéen ji itam war koo jàng lool waaye daanaka liy duuf ci nag bi yépp du xaj ci cin li moo tax ñu yemale foofu li nga xam ne mooy lii di deretu régle ak ay atteem ñu war a ñëw incha allah ci tomb bi ci ñaareel bi incha allah ñaareelu euh, deret yi nga xam ne bokk na ci deret yi nga xam ne tabian yi la lu naturel la luy génn ci jigéen moom mooy damul nifaas mooy deretu gësin deretu gësin mooy lan an nifaasu fi luga buñ waxee an nifaas ci wàllu làkk arab maxuudun min an waxee li nga xam ne moom mooy euh, euh, an nifaas ci wàllu làkk arab moom mooy ba léegi rek deret lay firi joo xam ne moom it day génn ci jigéen bu ñu waxee annifaasu fi ash mooy lan mooy huwa addamu addamu alxaariju min almar'a bi sababi bi sababi alwilaada wa in kaana almawlud saqata même bu fekkente ne jigéen ji dafa avorté du tee lii di deret ji dana génn ci moom kon lii sabab ak liy waral deretu gasin di génn ci jigéen mooy gannaaw ba mu amee doom wala mu avorté ñaar yooyu day waral deretu gasin di génn ci jigéen kon loolu mooy xamle bi ñu xam bi ñu indi euh, woon ci li jëm ci wàllu nifaas ci wàllu luxa ak euh, li nga xam ne mooy wàllu istilaax muddatu nifaas mooy euh, li nga xam ne moom mooy délai bi nga xam ne moom la nifaas di am ñaata fan la nifaas di am mu nekk lu jara xam ndax wax dëgg yàlla jamono ji dem nañ ba jigéen ñu bari dañuy réer ci loolu di ci demee loo xam ne wax dëgg seen xelum bopp la te loolu mën a nekk lu yàq lu baree bari ci seen wàllu jaam yàlla mu ne euh, fi mu toll li nga xam ne moom mooy nifaas amul mudd boo xam ne euh, bu gën a ndaw la dañ naan bii moo gën a ndaw waaye li ci am rek mooy nifaas moom deret la joo xam ne day génn ci jigéen ji li ci ëpp ci fan yi moom mooy arbauna yawman mooy li nga xam ne mooy ñeen fukki guddi wala ñeen fukki fan lay am ci jigéen bi euh, qaala ibnu qudama aksaru nifaas arbauna yawman mu ne li ëpp ci nifaas yi deret bi ci gën a gudd moom mooy ñeen fukki fan kon ñeen fukki fan moom la nifaas di am pour ndaa di arrêté waaye yenn saa yi bu fekkente ne euh, euh, nifaas da nga dem ba ci biir comme masalan jigéen ji gis am doom mu daal di toog mm, juróomi guddi walla fukki guddi wala fukki guddeeg juróom deret ci arrêté mu ne ah man de ñeent fukki guddi laa ko war laa ko war a gis daal di continuer rek julli wut woorut loolu bu boobaa du wér waaye li wér mboofu mooy bu deret ji daggee day sangu def ay jaamu yàllaam bu deret ji ñëwaatee mu arrêté bu ara bu arrêté après fan yam am ya ca toppaat mu jël ko taf ko ci fan yu njëkkee di compter di compter ba am ñeent fukki guddee mu xam ne ah sama ñeent fukki guddi yi mat na su fekkee deret ji dafa arrêté nag mu daal di dem continuer deret ji ñëwaatul ah mu xam ne bu boobaa set na waaye saa yu daggee rek dafa war a sangu def ay jaam yàlla am suñu waatee mu arrêté waat ba keroog mudda bi di mot waaye kañ la nifaas di commencé nifaas mi ngi commencé bu fekkente ne nit ka doom ja tàbbi na doom ja génn na rek nifaas ba daal dinay commencé yenn saa yi nag gis deret joo xam ne dafay génn ci jigéen ji lu jiitu lu jiitu muy am doom comme niñ ci waxee ne diwde dafay sañe wala de day génne deret deret boobu lu jara xam la ba xam ndax nifaas la wala déet moo tax ibnu uthaymin rahimahullah dafa wax ne ida raat ida raat alxaamil damun qabla alwilaada mu ne bu fekkee jigéen ji dafa gis deret lu jiitu muy am doom mu ne mu ànd ak li nga xamante ne moom mooy ab talaq moom mooy mu ànd ak Euh, matu mu ne bu boobaa fa innahu nifaasun tatruku min ajlihi as-salaa wa siyaam bu fekkente ne ba muy gis deret ji dafa ànd ak ay métit muy matu métitu mat bu boobaa na xam ne deret jooju di génn deretu la mu ne waaye bu fekkente ne dafa génn deret dafa génn lu jiitu muy am doom te àndut ak benn métit àndut matu bu boobaa na xam ne deret jooju kat leneen la te loolu du tee nit ka di julli kon loolu du tee nit ki julli waaye li nga xamante ne moom mooy nifaas tamit dafa am li nga xamante ne moom mooy liñ doon leeral sànq dagg boo xam ne da koy dagg lu jiitu arbaina yow mi di di mot bu boobaa bi biñ ci wax sànq rek moom lay def mooy day arrêté jaamu yàlla yi bu fekkente ne deret ji ñëw na su deret ji daggee mu def ay jaamu yàllaam su fekkente ne deret ji jeex na mu daal di continuer li nga xamante ne mooy ay yàlla am su deret ji arrêté mu def jàmm yàlla am su ñëwaatee mu daal di arrêté waat waaye nag boole ko di wàññi bu amee ñeent fukki guddi rek moom mot na amul loo xam ne da koy moom mooy li ci gën a bëri moom mooy arbauna yawman kon loolu ci tënk mooy li nga xam ne mooy nifaas ak li nga xam ne moom moo ci alu aju mooy nifaas ak li nga xam ne moom moo ci aju mooy ci njëkk ba moom mooy xamle lan mooy nifaas ci luxa ak istilaax xamle lan mooy mudda bi maanaam ñaata fan lay am ñu ne la amul luñ koy mën a tënk ne nangami fan lay am ci lu gën a néew waaye am na fu ñu ko mën a tënk ca la gën a bari mooy lan mooy ñeent fukki guddi kañ la nifaas di commencé ma ngay commencé bu doom ja génnee bu doom ji génnee rek ci biiru yaayam rek nifaas ba daadi nay tàmbale bu dee deret ji ko jiitu la na dañuy xool bu deret ji àndeg mat ñu xam ne ah li deretu nifaas la su fekkee deret ji àndul ak mat nag ñu xam ne lii leneen la du tee nit ke jigéen ja di julli di def ay jaamu yàllam ba keroog muy am doom bu fekkee deret ji dafay dagg rek di dem ak a ñëw liñ ci expliqué woon sànk rek bu boobaa noonu lay def ثالثا نيتيلو درك بيغا خامني دا فاي ген تي جيجين موم لا نيي واخ دام الاستحاضه تي اولوف ديكا واخ دريتو جونغل دم الاستحاضه نك دا فا نيك درك جو خامنتيني دام الاستحاضه دم يخرج من عرق ينفجر في رحم المراه في غير اوقات الحيض او النفاس او متصلا بهما ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في صفته وأحكامه درجة استحاضة دفنك درجة جوهمنة دفاي ген تي بن لو ملني سي ديت بو خامن داي ген درجة جوجي اولا تا رحم المرأة مو نيك درجة جو خامن داي ген تي لودول حيض ولا نفاس موم جوتي ول حيض جوتي ول نفاس با بالا نك bokkut ak ñoom dara bokkut ak ñoom ci wàllu melokaan bokkut ak ñoom ci wàllu ay àtte moo tax dañ lay andi li nga xam ne mooy alfarq bayna damul xayd wa damul istixaada lan mooy tàqale diggante deretu xayd ak deretu istixaada lii di deretu mërët ak deretu jorngel ñaar yi lan moo leen di tàqale ñeenti mbir yi moo leen di tàqale awalan li nga xamante ne mooy damul xayd aswadun wa damul istixaada ahmar deretu mbërët dafa nekk deret yoo xam ne dafa ñuul comme niñ ko waxee woon sànq diis ba pare am xet waaye damul istixaada nag dafa nekk deret yoo xam ne moom dafa xonq rek xonq boo xam ne xonq bu oyof la damul xaydu nekk na loo xam ne saxiin wa damul istixaada raqiq daru deretu xaydu dafa xaw a fat xaw a diis waaye deretu li nga xam ne mooy istixaada dafa oyof mu ne damul xaydu Euh, mu ne euh, dafa dafa nekk loo xam ne euh, natinu raiha wa damul istihada gayru matin matin ar raiha li xam ne mooy deretu xayd xet bi dafa sëcc waaye deretu istixaada amul xet boo xam ne xet bu sëcc la muy ñetteelu mbir bi ñeenteelu mbir bi damul xayd nekk laa yatajammat nekkul luy luy maanaam du way wa damul istixaada dafa nekk loo xam ne dafay euh, faral di nekk loo xam ne dafay woy dafay dëgër day day bu yàggee tegu rek dafay woy kon damul xeet nekk na loo xamante ne laa yeta jammad wa damul istixaada yeta jammad damul istixaada dafay way kon li nga xam ne moom mooy euh, ñeenti mbir yooyu ñu leen andil mooy liy tàqale diggante xayd ak istixaada ba jigéen ji su gisee deret ji dina mën a xam ne deret ji kat moom deretu mbërët la waaye su gisee beneen ba dina xam ne bii kat deretu istixaada la su ko defee xàmmee boobu mu koy xàmmee dana ko dimbale ba mu mën leen a tàqale ndax kenn ku ci nekk ci ñoom dafa am àtte yoo xam ne dafa wute ak moromam te dina ñëw incha allah ci kanam kon li tax ñu andil leen farq bi maanaam différence bi nekk ci diggante xayd ak li nga xam ne mooy istixaada day tax jigéen ji mën a xam ne yooyu yëpp benn boo xam ne gis na ko ci rek dina mën a xam naka la war a taxawee ndax al mustahaad ki nga xam ne dafa am istixaada dafa am ay axwaal dafa am ay xaal yoo xam ne daf daf daf dafa dafa aju ci li nga xam ne mooy xayd ak istixaada ndax deret yooyu bu ko xàmmeewul rek day xaw a am ak jaaxle ci moom bu fekkee istixaada dal na ko موضح ان المرأة, المس... المرأة المستحاض لها ثلاث حالات كي جس دارة جورنجل دفع أم نتي حال يو حمني موم دفتي نيك بيشن جاك موي أن تكون مدة الحيض معروفا لها بفكي جيجين لجو حمني خمنا مانا موم نياتا فن لدان جس ريجل خمنا كو موم خمنا نكت مثلا موم جرومي فن لجس ريجل mu ne euh, lu jiitu istixaada moom dafa jékki-jékki rek istixaada dal deret ji ñëw rek bañ a arrêté yàlla nañ ci yàlla musal mu ne dafa jékki-jékki rek loolu dal ko bi mu ko dalee nag mu daal di euh, jaaxle waaye lan moo ko dimbale mooy moom nekkoon na ko xam ne xamoon na ñaata fan lay gis xayet léegi moom nu muy def mooy istixaada boobu di génn day day xam ne njàngami fan yi kat moo nekkoon sama sama sama règle te te date sàngam laa ko daan gis su date boobu ñëwee da ngay gis ne deret yi ñëw day wuute ak istixaada bu boobaa mu xam ne lii mooy sama deretu xayd mu toog fan yooyu fan ya ca des mu xam ne istixaada la mu daal di euh, commencé ay jaamu yàlla ñaareel xaal ba mu ne an takuna lil mar'atu qudratu أن آه، أن يميز أو أو أن تميز بين دم الحيض والاستحارة. بفكر أنت نه دي جين جنك نقوها من تامين كأم قدرة لك من خامة دريت حيض أك نفاس كم نينك وهاي وانسان خامة نلين خامة نبيني ليمل بيني ليمل بوبا بودي ما يبدر الدينيو بودي ما يبحيدنيو دينا خامة لي حيض لا بنين بنيو مخامة لي استحارة لا. waaye bu fekkente ne ñetteelu xaal bi la mooy jigéen ji nga xam ne moom xàmmeewul ñe bii xàmmeewul ba ca des bu boobaa kooku moom ni muy def moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy mu xam waxtu bi nga xamante ne moom la daan toog rek bu waxtu boobu jotee mu daal di mën a arrêté daa ay jaamu yàlla xam ne lii kat waxtu xayd la mu ko waxtu woowu jàllee mu continuer li nga xamante ne moom mooy ay jaamu yàllaam kon ñe al euh, euh, mustahaad ki nga xam ne dafa gis deretu jorngel ñett yooyu moom du ci génn soit mu xam ne mu nekk koo xam ne xam na euh, heure bi nga xam ne ci la réglam daan ci weer wu jot su weer heure boobu jotee mu daal di koy toog wala mu nekk koo xam ne xàmmee na deret yi bu deret bi di ci moom mu dem ba xam ne bii kat deretu xayd la fan yooyu mu toog bañ a def jàmm yàlla wala mu nekk koo xamante ne xàmmeewul waxtu wam ko daan gis waaye xam ne xàmmeewul tamit couleur ya kon moom weer bu nekk dina am nangami fan yum ca toog ba yooyu fan jàll mu soog a continuer li nga xam ne mooy ay jàmm yàlla kon istixaada comme niñ ko xamee deret la joo xam ne day génn ci jigéen bu commencé génn ci moom nag mën na continuer ma ak moom lu yàgg yàgg ndax ki nga xam ne mooy Aïcha radiallahu anha dafa wax ne kii di Fatima bint Abi Xubaysh dafa ibnu Habib ibnu Xubaysh dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy ne ya rasulallah yow mi yàlla ni inni imraun astaxib man de jigéen laa xam ne damay gis li xam ne mooy istixaaba mu ne mu ne fa fala fala atahur man de du may set maanaam deret ji du dag afa ada u salaata ndax damay bàyyi julli fa qaala yonent bi salaa sallam ne ko la إنما ذلك عرق لولا ده أو سدد له ليس بحيض نكل لنا حمنا موي مرض فإذا أقبلت حيضتك بفك أنت نسا دريت مرض نيونة فدعي فلا باي الجلي وإذا أدبرت بفك أنت دريت حيدي جدمنا مدفة دريت استحالة بنك منك فاغسلي نغسان سنغو عند الدم عند الدم ma fal salli maanaam même bu continuer di génn na nga sangu su topp loolu nag nga julli waaye li muy leeral foofu rek mooy yent bi sa sallam leeralal na ko ne deretu li nga xam ne mooy jorngel deret la joo xam ne ab sidit la boo xam ne bu génnee ci jigéen ji di sotti du gaaw a arrêté wala boog du arrêté waaye bu boobaa li muy def mooy bu xayd ba ñëwee rek mu daal di arrêté ay jaamu yàlla bu xaydi ba jàllee mu continuer li nga xam ne mooy ay jaam yàllam sangu ci kaw deret ji euh, continuer ay jaam yàllam bu boobaa nag dafay laaj ay atte yoo xam ne moom la ku jigéen ki war a yor moom moom la war a atte woo pour mën a continuer ay jaam yàllam bi ci njëkk mooy moom dootul mën a yor benn njàpp boo xam ne moom lay yor di ko jullee moom dootul bokkati kon ci ñi nga xam ne benn njàpp mën nañ cee julli juróomi waxtu waaye bu boobaa benn julli bu ne daf koy jàppal boole kaak nag bu julli bi di waaj a ñëw mu mën a dem ca wanag wax xoolaat boppam préparé waat boppam bu waree changé mu changé defaru ba jekk soogu mën a ñëw taxaw pour julli waaye waxtu wu nekk itam daf koy jàppal kon istixaada nekk mbir moo xam ne ab mbir la boo xam ne bu dalee jigéen ji li mu war a xam mooy bu xasee ba règle ba jàll rek la ca def noonu la koy bàyyi continuer ay jaam yàlla su amee boroom kër dagan na ci moom mu ànd ak borom këram lépp lu jigéen ju set di def moom bu boobaa da koy mën a def même bu ajee day mën a wër kaaba ga def li muy def mais li ko war rek mooy mu fexe ba xàmmee deret yi ba benn bu ci nekk rek moo xam ne bii lii la loolu moom su ko defee rek dina ko dimbali ba dina mën a jaamu yàlla ci kaw li nga xam ne moom mooy deret yooyee te du ko yàqal dara ci ay jaamu yàllaam kon ñetti façon ngi deret yooyu mbokk yi mooy deret yi nga xam ne war na ci bépp jigéenu jullit mu xàmmee leen waaye xàmmee itam seeni àtte benn bu ci nekk rekk su ko dalee mu xam ban matuwaay la war a jël ndax lii di fiq ci islaam lii di fiq ci islaam ñun jigéen ñi ñoo ko war a gën a yittewoo ndax suñu fiq moo gën a jafe ndax euh, lañu war xëy na ci mbirum suñu ay jaamu yàlla ak lay génn ci jigéen xëy na nekk na mbir yoo xam ne war naa tax jigéen xam ko ba àtte woo ko ba mën a góor góorlu bu baax a baax ci àtte yooyu ba mën a nekk koo xam ne day jaamu boroomam jaamu yàlla yi nekk ay jaamu yàlla yu wér waaye itam mu teg ko lépp ci xam-xam te loolu dafay laaj gëstu moo tax may gën a woo sama mbokku jigéen ñi ñu gën a góor góorlu ci sàkku xam-xam ak yitte woo xam-xamu fiq ndax dinañu gën a dimbale bu baax a baax ci suñu ay jaamu yàlla ndax jaamu yàlla boo ca def teg ko ci làmbatu wala jaamu yàlla boo ca def def te fekk àndut ak laab bu boobaa yàlla du ko nangu kon euh, ci gàttal rek loolu moo nekkoon euh, suñu li ñu waajaloon pour andi ko ci ñetti façon yi deret yooyu nga xam ne deret yu naturel leen di génn ci jigéen lépp lu jub ci kàddu yi ci borom bi la subhanahu wa taala lépp loo xamante ne lu dëng la maa ngi koy jégalu bu baax a baax ci man la ak gàtt aliwo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk